Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp ku ci nekk sa tur et puis suma adversaire Moustapha Tine di ko production équipe bi yëpp en particulier mi nga xam ne mooy DG muy Thialis ak jaw di leen ziar bu baax di nuyu suma ménage ak sama équipe yooyu àndal di nuyu suma papa nekk fii yëpp di leen ziar bu baax a baax waaw Pape Thialis dafa ñëw waxtaan ak euh, staff bi li ñu amee habitude koy def rek boo bëggee sama combat da ngay wax ak staff bi et bi yàggul parce que gars am na fu ñu taxaw ma seet si rek mu yomb incha allah ñu war a bëri moom léegi ñu jël mbër mi nga xam ni kenn ñi mënul bëri moom mm-hmm. kun ko jox nga delloo avance ni ko Malick Thiandoum waxee léegi jël ko lu tax waaw lu ma jël ko mais combat bi est-ce que Boy Niang bëgg nañ combat mais Boy Niang moo gën a bëgg bëre Tapha Tine. bëgg combat bi. bëgg bëre parce que dama xam ne Tapha champion la et ñu ñun ay xale lañ ci làmb ñu def lu Tapha deful ci làmb. Mm-hmm. ay xale lañ da nekk ay xale dañu am yoon et dañu war bàyyi ñu kon na suñu ay xarala ñu defaguñ ci dara ci làmb lu ñu dese moo ëpp lu ñu def donc ma gisee Tapha champion la et puis mooy commencé ci làmb mooy fàttaliku nekk booy combat bu ma jëloon rek gars yi ñëw làmb ji dañ naan tey laay génn ci dama bëgg loolu quoi dafa bokk ci man. da lay dugal waaw dama bëgg lool waa dama bëgg combat yoo xamante ni Tapha nit ñi bàyyi nañ ko fekk bàyyiwuñ ko mais jàpp naa ne bu ñu ko rek booy ñaar combat bu neex lay doon dinañ bëre. su bëggee bëri dañuy xeex su bëggee xeex incha li ma lay mujj laaj mooy Leewtoo production ñoom loolu wax xale bu waaw Leewtoo dama leen ziar rek di leen bu baax ci biir jotaay bi nii yaa ngi gis ñu annoncé beneen nouvelle wax ne am na beneen combat bu taxaw xam nga loolu defal làmb la làmb moom boo ñëwee boo yokkul rek da ngaa wàññi et ñoom ñu ngi yokk quoi di leen bëgg bu baax di leen jàmm dañuy wax combat ñu teg yëpp suñu boom defal leen jàmm ngeen am si réussite bu bu parfaite bu importance incha ñu ngi ziar ñëpp nag di bëgg ñëpp waa ji wax Tafa di ko jaar di ko wax ne combat bu neex la maag moom parce que man dama jàpp ne ñor ñor tab bi moo gën gësëm ñor ñor tab bi ñor tab bi ñor ñor champion la man ak moom dafay ñaax te amateur dañ ko bëgg combat amateur la combat jànk la waaw bu jeexee rek jeex na incha allah wax ma combat bi mu taxawee waaw Doudou salaamaaleykum maa ngi lay nuyu hmm, di nuyu journaliste yi fi teew yëpp di nuyu suma entraîneur en même temps mu ñëw teewal fi sama menacé moo koy nuyu di nuyu Pape Thialis ak ñi mu àndal di liggéey ñëpp hmm, di nuyu aussi Boy Niang suma frère comme ni mu ko waxee maa ngi koy delloo cër bi di ko wax na ko jàmbaar la mais am na bés quoi na leer te waaw di nuyu Sénégal yëpp di nuyu sumuy supporter di nuyu waa Bawol aussi di nuyu Bawol Bawol yëpp fu ñu ne ci àdduna di nuyu képp kuy bëggee Tapha ak ñi ma doon ñaanal naan Tapha Tine yàlla na am combat di son aussi papa ak El nga xam ne ñoo mooy xelal Pape Thialis xam na ci dara donc Pape Thialis nag dañ koy remercier côté bu nekk waaw mën naa ne bi mu ko annoncé léegi deful une semaine combat bi taxaw. kon mën naa ne jàmbaar la quoi en même temps dégg naa dolli na Garga ak Sa Thiès yàlla na ci dolli yeneen i combat ñu ngi koy ñaanal lool parce que la dañ ko war a jàppale waaw bu loolu weesoo nag di sant yàlla bu baax a baax di sant su may waajur bu wér a wér wér a di ñaan yàlla feebar bi yàlla na ko fi yàlla jële nu mu gën a gaawee bu activités yi xam nga kenn ku ne dellu ci sa ay activité daal parce que xam nga ñëpp jaaxle nañ quoi comme ni ñu koy waxee du noonu hmm. waaw grand contre petit bi coow li bare kun ni grand contre petit nga roccee ku jël sa morom yow nga jël gone Pikine bi lébe àdduna bi combat du risque ci yow wala non man benn combat du risque ci man man mën naa ne ponk li ñuy wax ci làmb yëpp man maa leen daan xoolal bu baax li mu la wax loolu dafa leer cargo yi nii ci làmb ji yëpp man maa leen daan kon booy ñaa taxaw ci kanamu Tapha Tine wax dëgg du risque ci man vraiment champion la mbër la def na fi lu ne ma koy ñaanal wér bu bés ba man li ma jàpp li ma jàpp laa jàpp de mat xaw ma keneen lu mu jàpp sama yoon na wuji keneen lu mu jàpp ko mais man tafaati li ma jàpp bu bëree ma daan ko bu xeexee ma daan ko man loolu laa jàpp ko leer na waaw su suma frère nag maa ngi koy sant di ko gërëm ci combat bi mu jël parce que wax dëgg yàlla comme ni ñu ko waxee taxawaloon combat Tapha Tine jafe na côté bu nekk vraiment seeti nañu fi ku nekk waaw ku dem bu ay contrat ñu ne la ñëwal jël xaalis xam nga combat bu yàqu ma toog di muñ xam nga toog di seere ñi mu war a xelal di ma xelal dalal dalal dina ñëw ba tey bés ñëw na. kon mën naa ne sant yàlla quoi. bi booy ñaar nangoo bëreek man ma koy remercier ci côté boobu. voilà mu ngi noonu kon maa ngi jaajafal Sénégal yëpp. di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne kontaan naa ci Pape Thialis aussi moom ñi muy liggéeyal ñëpp yal na leen yàlla gën a jàppale quoi di sant aussi presse bi di jéeglu ci tardement bi xam di nuy waa kër Cheikh na Cheikh Sadou Abi waa kër Cheikh Mohamed Fadal fi bokk di ziar ñëpp di nuyu waa Pikine di nuyu ñëpp waa Touba waa Daaru Rahman di nuy ñëpp sama mbokk sama am di jàmm yi sama waa kër maam Cheikh man maa ngi bëggee ñëpp di ziar ñëpp waa kom ni ñuy wax rek euh, combat bi Pape Thialis da ko démarché boo gisee taxawal ko yomb mooy waxtaan bi yàggul parce que ñun ay xale lañ ci làmb kat waaye xam naa ni moom xaw na xam suñu valeur ci làmb et puis lu ñu soxla jox nañu ko sant nañ yàlla bu baax comprendre nga. ñu ñëw war a bëreeg Tapha Tine staff bi bëgg nañ Tapha parce que Tapha champion la def na lépp ci làmb mais comme li ma la wax rek man maa bëgg a bëri ak Tapha Tine. lu parce que bu may commencé làmb dama daama di wax ni pour ma doon dara il faut ma daan champion yëpp sama gëm làmb bu ndaw. dama jàpp ne pour ma doon dara ci làmb wala bu ñu tuddee làmb tudd sama tur donc foo ma daan champion yëpp loolu laa jàpp yombul nag liggéey lañu ay xare lañu waaye jàpp nañ champion yooyu Tapha ci la bokk war nañu bëri ak moom suñ borom moo yor ndam di ko maye ñu ngi koy ñaan mu may ñu ko ci barke Cheikh Nassir Sall. léegi ci biir présentation ko soo bëree mu comme ni ko wax rek loolu. neex na loolu wax ko dafa teel. waaw loolu waxam la mais wax ko dafa teel làmb bi ñoo ko sekk maak moom comme li ma wax rek ñool tàbbi moom moo gën gësam ñool tàbbi moo gën gësam loolu dafa jeex jartaak comprendre nga Tapha champion ra defuma ci làmb lu mu deful wala lu mu def sax man defuma ko xale laa dama ñëw pour bëreeg moom pour wane ni boo ñaar champion bu ndaw la ci moom après ma dem xool leneen. Hmm. da nga ne da ngay mhm. mhm. kaasam mi ngi fi indaale nañ ko. bu ko naanul rek incha bu ñu jàppee date ak charge ñu indi ko kaasam bu soobee yàlla. comme noonu la demee daa am lu may leeral nag. comme presse bi yëpp ñu ngi fi. ba bëgg leen wan ni rek euh, man xalelaa laa dama ne ci làmb. donc il faut ko ñu bàyyi jël suma carrière fixé ko ci benn. département wala ci benn nit dama nekk xale war a bëreeg ñoom ñëpp su ma paree ci Tapha dama war a bëreeg beneen champion suñu borom bu ñu mayee ndam ñu ngi koy ñaan suñu borom. waa Pikine rek laa fi bàyyi kon donc nag il faut mu leer ci presse bi ñu bañ a jàpp na man li may sonn ci làmb wala di ko ñafe ci làmb pour benn mbër la wala pour benn gox la géej waaye bëre naa fa ay champion yu bari amul lu ma faral di defar def naa fa li ma fay def ba pare. donc loolu moo gën a tax ma préféré pour bëre ak feneen dama war a bëre ak yeneen champion. bu waaw bu ñoree rek tab bi noonu la demee maa ngi jaar ñëpp nag di bëggee ñëpp loolu il faut ma leeral ko fii pour nga xam ne boo ñaan ñafewul carrière am ba mu commencé ba léegi pour benn mbër wala pour benn gox dama war a bëre gaa yi fi nekk yëpp laale ak ñëpp comme ñoo ñëpp ay champion maa ngi bëggee ñëpp di jaar ñëpp jaajëf. Leewtoo taxawal na sa diggante ak euh, euh, Boy dem nga sax bañ ne la demal jëli avance nga dem ba ci yoon wi avance ba delluwaat ginnaaw tey Boy Niang nangu la jël déjà lan ngay wax ci combat bi nga xam ne combat jànq la sa diggante ak Boy Niang. waaw Malick di la nuyuwaat encore di nuyuwaat ñëpp ah waaw di nuyuwaat di ñaanal euh, xalifa bi sëñ Mountakha yal na fi yàgg te wér ak bépp xalifa bépp këru diine ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp waaw Malick comme ni nga ko waxee rek noonu la demee quoi yàkkamti wuñu dara. ci làmb la ñu nekk xam nañu làmb nu muy déroulé kon du ñu yàkkamti quoi am na beneen mbir bu naan ràmbax xaw ma booy pàccax affaire yooyu waaw yooyu dañ koy bàyyi xel sa waay nag xam nga mm, mu ngi naan ñor tabi mais xamul lan mooy lool fa ñuy dem 4 heures du matin ñun ci alba lañ dëkk di fëraatu 4 heures du matin bu fa jógoon day daw waaw garab bu mu mën di doon. lëndam lañu koy for te dinañu xam mooy lan waaw na nga laaj bawol bawol yi lan mooy saakaande wala kajoor kajoor yi bés bi dama bëgg mu saakaande na leer laaj bawol bawol yi lan mooy saakaande wala kajoor kajoor yi du leer na booy ñaa amul moo koy wax suma frère la suma frère la làmb moo ñu boole ñu ñu war a bëre di daje man nag damay ñaan yàlla yàlla na ma yàlla may ndam la ma doon wax laay wax rek li ma wax sànq laay wax man li ma jàpp bu bëree ñàkk bu xeexee ñàkk amul leneen na suuf soufflé jàmm ak salaam rek loolu laay ñaan yàlla ma def na mu doon def.

mu jeex après gars yi waa RTS vous avez besoin de Pape Thialis pour le français wala pour le journal. ayca Thialis kii